Bienvenue sur Salam Vision. comme d'habitude maa leen ko waxoon mu ngi nii toog sama yaay ju baax parce que depuis bi ma bi ma ñëwee daf ma gisal boppam bëggal ma boppam te loolu moom yàllaa koy dogal gis bëgg yàllaa koy dogal ñu gën ko xam ci madame Ndaw mu nekk formatrice IFOT annexe ba si am na ñoo xamante nii fañ nekk tey c'est grâce à à suñu yaay toog loolu c'est pas donné à n'importe qui kon ñu ngi koy sant davantage di ko bàyyi mu nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan comme ça ñu weel waxtaan wi euh, asalaamaaleykum maaleykum salaam euh, maa ñëpp euh, di leen di rafetlu vraiment teewaay bi euh, ak taxawaay bi liggéey bi rafet na macha allah euh, maa ngi tudd madame Ndaw Maïmouna Faye euh, nekk formatrice en économie familiale et sociale di évoluer ci domaine restauration ak hôtellerie am ay module ak ay matières yoo xam ne yu am solo yoo xam ne ñu ñoo koy ñoo ciy former xale yi pour ñu mën a am seen diplôme de CAP restauration hôtellerie ou euh, BOP euh, tey nag journée d'intégration bi waaw am na solo trop si ñun parce que ci moment yu gën a am solo mën nañu wax ne ci la bokk ndax euh, quand même xale bi bu bàyyee këram waajur am waajuram am ay yaakaar mu ñëw fii vraiment ñu xamal ko ne fii sa kër la fii mooy sa deuxième famille fii ngay jàngee métier fii di nga fi jëlee xam-xam xelam dal ah loolu xam naa ne lu am solo la donc dañ koy rafetlu en tant que kat di ko rafetlu aussi ah, parce que aussi ay parents d'élèves la. fi ñu ñëw teg fi thème bu am solo thème boo xamante ni nii képp kuy ndaw wala képp koo xam ne nit nga nekk ci nekk ci biir société bi war ngaa am développement personnel kon ñu bëggoon nga leeral ñu tuuti parce que loolu lu am solo la ci nit. waaw euh, alhamdulilah vraiment mënuñu woon choisir thème bu gën a am solo ni développement personnel. ndax képp koo xam ne day euh, day day ut métier day yëngatu ci dara euh, yaakaar naa ne boo defee formation en développement personne personnel dina am lu bëri loo xam ne dina la ko yombalal pour nga mën a am compétence yi nga xam ne moo lay mën a permettre nga mën a insérer wu ci euh, entreprise yi nga mën a insérer wu ci circuit économique bi donc module bi am na solo te gis nga aussi ki ko doon déroulé macha allah ñëpp gis nañ xaranteem ñëpp gis nañ aussi euh, vraiment engagement ñu yaakaar ne xale yi tey bu ñu fi jógee dinañu xam gëdd dinañ gën a jox dayoo li nga xam ne moom la ñu ñëw di ko jàng ci fii ci ci euh, macha allah thème bi am na solo te baax na pour euh, leur développement pour leur intégration dans le milieu professionnel. maman pour terminer à beauté. ñu bëggoon xam en tant que yaay. waaw lan ngay conseiller sa moromu jigéen yi nga xamante ni ci kër gi. ah nga leen di conseil ci loolu noonu ak nan la ñu war a dundee ci seen avenir u doom parce que avenir doom lu am solo la ci ci waajur. Euh, xanaa rek euh, euh, di sant yàlla ndax lii nga wax nii dafa am solo amaana sax xëy na jigéen xam na ko ndax jigéen buy yëngatu rek njabootam moo tax mu yëngatu mais léeg-léeg dañuy fàtte ne xale bi xale bi am bi am CAP xale boobu mi ngi mel ni am na befemam xale bi nga xam ne am na BEP mi ngi mel ni am na bagam ku am BTS am nga bac plus 2 te yooyu ñooy diplôme yi nga xam ne moom la ñuy délivrer dans la formation professionnelle donc say waajur yi bu ñu gisee seen doom mu teel a bëgg dara nañ ko si gunge jàppale ko ndax ni muy amee euh, diplome yi ma la waxee ak nga xam ne moo def bagak moo def euh, yeneen kii daanaka benn la te bii sax ñi seet moo gën a am avantage ndax xale bi dina am diplôme am ba pare am métier kuñ ko ku ko recruter mu liggéey kuñ ko recruter wu sax mu ubbi entreprise am donc wax dëgg yàlla ñi ngi ñaax yaay yi pour nañu xam ne euh, dëkk bi pour mu développer il faut xale yi am métier il faut ñu ñu engagé wu dans le processus de développement pour il faut ñu bàyyi xale yi ñu jàng ci métier yi te léegi filières yi macha allah comme fii IPHOT gis ngeen ko xale bi lu ne mën na ko fi jàng Euh, am na fi je pense que ñi ma jiitu wax nañ ko donc euh, am na fi filière yu bari yoo xam ne xale bi mën na ci évoluer am ci métier am euh, vraiment tedd ci am ci teraanga voilà. yaay booy kontaan nañ ci yow. mooy journée d'intégration fii lay doonee ci IFHOT ku ma fi dëgg ne ma Massa journée bi nag mi ngi xewee fii ci Kër Massar incha allah. i Cheikh interneur nii lay demee saa su ne on va continuer l'affaire nee naa leen fi la lépp di xewee xasee scotché bu leen zappé bu leen changé. ñu toog ak benn benn boo xamante ni nii il est de l'école fi la bàyyeekoo fi lay defee ay progression fi lay suiv fi lay suivre carrière am li mu bëgg fii la koy jàngee ñu gën ko xam ci Dame Dieye daam man je l'admire non si man je l'admire parce que man dama bëgg koo xamante ni nii il est comme moi reer na kon dama koy bàyyi muy nuyoo ak yéen comme ça on va continuer bon salaamaaleykum sama gars yi maaleykum salaam maa leen siyaar euh, kontaan naa si seet bi ngeen ñu seet si en fait il faut dafa nekk école boo xam ne daf ma motiver Euh, dafa dafa tax ma gën a am kii nii motivation parce que du ma ko nëbbu quoi dama daan daw jàng école. xam nga dama foogoon ni xam nga école rek du du du du may dara quoi. léegi après je me suis dit ma ma def formation après sama si la contacté madame Ndiaye Yacine. ok après du coup ñoom ñaar ñu waxtaan sama ne ma après dama dama demal nga def formation restauration. pare ma ne ko c'est une bonne idée ma ñëw toog ma madame Ndiaye ñëw dalal ma xam nga def ma ni doomam téemoon ni boppam xam nga waaw looloo tax ma gën a am motivation si kii dama koy nuyu de passage parce que def na lu ne si man taxaw eh, taxawee na fépp xam nga malgré nekkul fii mais maa ngi koy nuyu de passage ndax soxlawu ma dara soxlawu ma dara lé ñëw ma tamit sama morom lépp lu ma soxla sama yaay mu ngi si taxaw ak sama maam tamit maa ngi siyaar bu baax kooku depuis ba may xale ba ni ma ba ma toll nii billaay wallaay moom laa gis maa ngi koy siyaar bu baax sama jabar jooju nuyu naa ko grand merci à ta maman ba tey defa ko <laughs> moi je t'aime merci <laughs> kon Dame ñuy kontaan ci yow bu baax a baax di wax na nga dundee tey bis bi en tant qu'étudiant ah, kontaan naa parce que ñëw naa fi gis naa fi yeneen visage yoo xam ne xamante wuñu woon gis fi ministre bi xam nga gis gis tamit sama yaay ji taa Yacine sañse lu rafet xam nga dugg si élèves yi élèves yi jox jox ko surprise xam nga loolu loolu kontaan loo na ma daal kontaan naa trop kon kon c'est un plaisir ñu toog partager ak soir incha allah en tant que jeune lan ngay wax sa morom yi euh, ma ba conseil leen ñu comme que jàng bu fayul liggéey mun na fay bul toog daal xam nga jéem def la tout xam nga ba jàpp si dara quoi. la vie voilà mën a mën a teral papa ak maman. merci Dame jaajëf. ça fait un énorme plaisir ma partager ak yow soirée parce que non j'aime je l'adore. mooy journée d'intégration euh, fii lay doonee ci IFHOT. ku ma fi dëgg ne ma Massa journée bi nag mi ngi xewee fii ci Kër Massar incha allah. amis chers internautes dañuy dérouler programme bi dañ koy woyal tu vois tey nag ñu ngi waat ak Arnold Arnold tamit. il est de l'école ci ci ci yi la bokk moom it fi lañ ko fekk mu nekk jeune bu engagé dynamique. voilà ok moi je m'appelle Arnaud Goudiaby étudiant à l'IFOT en formation accélérée donc BP BEP1 et BEP2 waaw c'est ça ngi kontaan ci yow baax a baax bëggoon a bëggoon a bëggoon a xam bëggoon journée bi nan nga ko ko dundee en tant que étudiant en tant que koo xamante ni nii il fait partie des étudiants ici. Bon, cette journée est spéciale pour moi parce que, comme, comme son nom l'indique, c'est une journée d'intégration. Mm -hmm. Et qui dit journée d'intégration dit rencontre entre étudiants, rencontre avec euh, les nouveaux inscrits et tout. Et également, euh, histoire aussi de connaître aussi, euh, c'est-à-dire euh, l'école dans son, dans son ensemble, les gens, qui, les gens dispensent les cours, c'est-à-dire les professeurs qui dispensent les cours, ainsi que de mieux connaître aussi la directrice et tout l'ensemble de son personnel. Donc c'est une grande journée pour moi et je remercie tout le monde. Et je me suis distrait, je me suis distrait un peu. kon kontaan nga. waaw super. en tant que jeune. Mhm. thème bi nan nga ko dundee. développement personnel. développement personnel bon y a c'est c'est un, c'est un domaine très vaste quand même c'est un domaine très vaste parce que d'ailleurs même souvent j'intervenais mais le professeur me disait non c'était pas ça et tout donc euh, je me dis que c'est un domaine quand même très vaste hein, parce que une personne est très large quoi. ne peut pas connaître la personne en un jour ni deux jours. Et aussi, le caractère aussi que, que, que nous devons avoir aussi dans le milieu professionnel, c'est quelque chose que l'on doit se forger. Quoi. Parce que le charisme et la personnalité, c'est des, des, vertus que toute personne doit avoir pour s'incarner dans ce monde. Quoi. Parce que si tu regardes aujourd'hui la personnalité des hommes forts dans ce monde, comme les Bill Gates, les Steve Jobs... Isan, continue, continue. Genre, ces types de personnalités-là, c'est des, des, bras de fer dans ce monde. Et en plus, moi, je me réfère en ces, bon, à ces gens-là, quoi. Parce que j'aimerais quand même marquer mon empreinte sur cette terre avant de mourir. Parce qu'aujourd'hui, c'est très beau de voir, par exemple, un boulevard comme boulevard Léopold Sédar Senghor. C'est très beau. Léopold Sédar Senghor, par exemple, il est mort. Mais tout le temps, quand tu passes sur ce boulevard-là, dès que tu entends son nom, c'est comme s'il vivait toujours, quoi. Moi, c'est des, des, choses comme ça que je veux dans ce monde-là avant de partir, quoi. Alors, tu rêves de devenir quoi Là, moi, c'est rêve. Moi, bon, comme je suis dans la restauration, moi, euh, mon, mon objectif, c'est de devenir un grand barman. et plus, plus particulièrement un grand mixologiste. Ok, ouais. c'est mouvant, c'est intéressant. Arnold, en tant que jeune, euh, en tant que jeune boo xamante ni dafa engagé dafa am projet lan ngay conseillé sa moromu jeune yi nga xamante ñoom ñoo toog sans rien faire pour ñu jug. man lan laa leen di conseiller en tant que jeune man sama jaar-jaar parce que man ça a pas été toujours facile dans ma vie tout ce que je l'ai eu que j'ai eu à l'arrache-pied je l'ai arraché genre c'est des choses que j'ai mérité parce que tey bu ma la doon wax tey jii sama jaar-jaar da nga naan noonu déedéet bu ma la expliqué nan laa def ba xam école bi ba dugg di def formation restauration da nga naan déedéet parce que man à la base opté wu moon pour lii opté wu moon pour lii sama paa moom si tugal gaa xool man ba may am bag ma am bag après def trois ans am kii sama licence en sciences politiques relations def benn demi année wu anglais anglais américain am naa sama level one bi en anglais américain après def def def naa tamit droit sax benn anne ma cartouché après ma bàyyi droit dem defi compta finance amaat naa encore licence compta finance door a ñëw def master 1 en finance et institution financière après spécialisé wu en master 2 de de finance et kii euh, finance et banque finance et institution financière du moins. am naa tamit deuxième euh, je aussi deuxième dan mondial en taekwondo kii euh, WTF. boo xool ci loolu laay yëngu mais man au début euh, kii naa après après mes études dama wut liggéey ba sonn j'ai déposé pas mal dans les banques ça a pas marché finalement pas bi ne ma xoolal comme instant bi li nga jàng yëpp c'est un peu compliqué léegi man je te conseille nga dugg ci ci une voie plus simple mooy la restauration mu boole maag madame euh, madame kii madame euh, nu tuddati madame Yacine encadré ma ba keroog léegi mooy loolu man nag ce que je peux conseiller aux jeunes la route man booy xool sama jaar-jaar yëpp li ma am yëpp je l'ai pas eu fi ma toog ma doon di xëy la matin il faisait dur il faisait froid ma koy jéngu di ko kii dara nag rien ne va te trouver sur place tout il faudra aller le chercher toi-même. pour l'avoir. maintenant l'État aussi je lance aussi un appel aussi à l'État et aussi aux jeunes aussi parce que les études aussi ne donnent pas tout parce que aussi il faut aussi entreprendre savoir entreprendre après les études c'est bien beau d'aller déposer ton CV pour chercher de l'emploi mais aussi se faire soi-même aussi comme comme le disent les Américains self-made man ça aussi c'est très ça aussi c'est très intéressant un homme il faut savoir même si tout est dur faut faut toujours trouver les moyens même dans une cuisine souvent tu te dis que euh, j'ai pas tel produit pourtant j'ai tu vas te faire quelque à manger. y a des pâtes qui sont là. Oui, des pâtes, de la viande grille, tu manges. Comprends Et aussi, aussi doit aussi doit aussi aider aussi les jeunes. Parce on ne peut pas être diplômé, étudier. Même avoir ne serait-ce qu'un stage, c'est un problème. Moi, je lance un appel à l'État. Il y a beaucoup de fuites de cerveau. Moi, j'ai pas mal d'amis qui sont en France, aux États-Unis, en Allemagne. Ils travaillent souvent, ils s'appellent la vie est La vie est difficile. aussi doit faire ça fait mal quoi, ça fait mal d'étudier toute sa vie, parce que moi presque j'ai presque 30 ans, j'ai 28 ans. Imagine-toi, un gosse qui a étudié presque jusqu'à la moitié de sa vie, parce que je me dis qu'à 60 ans c'est la retraite, donc la moitié d'une vie c'est ans. j'ai étudié presque la moitié de ma vie. Et je suis là pour trouver un job, c'est c'est un problème, c'est pas normal. c'est l'état du Sénégal que je blâme quoi. mooy journée d'intégration fii lay doonee ku ma fi dëgg ne ma massa journée bi nag mi ngi xewee fii ci Kër Massar incha allah. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna euh, maa ngi tudd Ndam Faye di leen ziare bu baax a baax yéen waa Salam Vision di rafetlu bu baax teewaay bi kontaan nañ ci bu baax a baax ni ngeen ñëw seet si waa EFOT ñu ciy kontaan bu baax a baax. Ndam tey en tant que jeune en tant que étudiant na nga dundee journée bi parce que gis nañ ne tey toogoo. tey daa mel ni sa rab yi dafa yëngatu lii lan la yewit waa dëgg neexul effort bu ay bu ay bu xewlee ñëpp war a jóg ndaxte dafa nekk école boo xamante ne dafa dafa nekk kër bokk ci ñun ñu xas bokk ci école mu nekk loo xamante ne dafa yàgg ki ko jiite nekk ku baax aussi koo xamante ne ku accueillant ku baax koo xamante ne dafa bëgg ñëpp def leen comme boppam ñun dañu dépassé suñu diggante ak moom yore bi mu ñu yor jàngal bi mu ñuy jàngal mais ni mu tax ni mu taxawee suñu diggante ak moom dañ ko yeb comme mag rakk ndax baax xol bu rafet yaatu bëgg ñëpp élèves yëpp la yéene jàmm ñëpp la yéene ñu réussir moo tax bu xewlee rek macha allah ñëppay sawar ñëppay kontaan pour jóg day neex. li naan affaire bande yooyu day def effet kon tey tey mu ngi def effet. il faut day def effet. il faut day def effet. surtout loolu. yow lool loolu lu ñu loolu lu ñuy waxtaanee waat la lu ñu lu ñuy waxtaanee waat la pourquoi nga ne il faut day def effet lool loolu bëgg na nga xam. day def effet li muy defee effet dafa ëpp ndax il faut dafa jóge ci wàllu jàngale mais yar. li muy bëggoon xam juste lu bëggoon xam juste. Mhm. depuis mhm. bi nga fi dugg see ba léegi. isa mhm. yaa ngi gis développement. maanaam say pensée ni nga doon toggee ni nga daan waxee parce que man xam naa ni ifot moo tax nga mel nii moo tax nga waane moo tax nga belli nii xam nga. non ifot wax naa ko sànq sama biir wax dafa dafa romb yar bu muy yar xale yi mais jàngal hygiène set mën a liggéey si anam bu mucc ay boo xamante ne luñ fuñ la woo da ngay ñëw ifot dañuy jàngal pâtisserie cuisine salle lépp ngay def hygiène. dafa baax ci ñëpp góor jigéen te il faut daf ci taxaw bu baax a baax surtout loolu ñu am fi ñoo xamante ne ñu xarañ ñu sawar spécial waaw surtout loolu ñu sawar ci bu jàppale ñu niveau boo mën a am boo ñëwee il dañ lay jàppale teg la ci yoon nga liggéey ci anam bu mucc ay parce que jamono tamit changé na nañ waxante dëgg xale yëpp a war a liggéey te gis nga suñu chef bii ñu am Yacine dafa baax bëgg ñëpp bëgg ñëpp réussir ñëpp nekk ci jàmm di liggéey ndaxte réew mi toll na foo xamante ne weesu nañ ku nit fu nekk nit ki nga nekk naan ko jàppale ma defal ma li ñëpp a war a liggéey Yacine dafa taxaw ci loolu bu baax a baax te dañ koy sant di ko gërëm ci loolu il faut daal lu ñu leen mën a wax daw si leen gaaw ñëw fii niveau boo mën a am bul toog bul xaar jànguma defuma lii defuma laa waruma war a ñëw wala duma du dem il boo ñëwee loo mën mënti am niveau boo mën a am dañ lay jàppale teg la ci yoon ba nga mën a nekk ci anam bu mucc ay di ko defee comme ni mu waree. ok bi nag dañu koy garanti cent pour cent. garanti parce que man yaa ma dee léegi du samay wax que tu m'as dit que yow il faut ak BFEM dugalaloo fi kon ça veut dire que jeune bi nga xamante ni moom moo toog jàngul bu ñëwee il faut mën na am ay résultats yu pax et que mën na am liggéey. man damay wax ni jànguma du lay pour nit ki war a. war a toog quoi war a toog. dañoo war a jóg surtout ñun jigéen ñi ñaari loxo mooy takk tubéy mooy takk sër dañoo war a jóg pour liggéey pour defar suñu avenir suñu avenir wu doom te il dafa taxaw ci loolu bu baax a baax a baax ni niveau boo mën a am dañ lay dalal ak jàmm tata tatagal la comme ni mu waree tette la teg la ci yoon man mii di wax ak yéen su ma leen waxee sama jàng soriwul du ngeen ma gëm mais il ñoo ma defar teg ma ci yoon damay damay wax français nu ma neexee di wax olof nu ma neexee te il ñoo ko def ci man et su ma toogoon ne jànguma rek du ma ko am na ñëpp jóg bu kenn ne jànguma aw ma diplôme li ñëw leen jàng ndax métier la te métier dafa baax ñépp a ko war a am surtout ñun jigéen ñi nañ leen ñëw liggéey ah, ñëw IFHOT def formation bi génn ci anam bu mu waree dem liggéey parce que parce que parce que on voit des jeunes filles yoo xamante dañu toog fi ñu toog benn raison la ñu am mooy que ni dañuy toog naan su ma wax laa su ma laa mais daw da ngay xam ne ñii nii su ma wax biñ biñ biñ nekk ñoo ko ñoo ko bëgg def seen bopp parce que y a des yoo xamante ni ñu ngi ci biir réew mi sa yow la ñuy toog di xaar kon ñëwal niveau boo mën a am ñëwal loolu du raison bu war a tax nit ki bañ a toog toog bañ a liggéey métier dafa baax bala ngay wax liggéeyu ma liggéeyu ma état jàppalewu ma jàppalewu ma defal sa effort defal li la war bu sottiwul nga xam ne yàlla moo ñëw wala sa bés dafa ñëwagul man dama contre kuy toog naan jàngu ma liggéeyu ma aw ma lii jàngu ma jàngu nañu dem jàngi dem liggéey ñëw fii ci effort defee ko fi ñu nekkandoo fi ensemble ñu leen di xaar ci nu mu gën a kon kon kon kon kon kon kon sa mot de la fin sa sa sa sa mot de la fin comme ça ñu tëj ñu tëj waxtaan bi parce que li nga fi wax yëpp am na sens nga conseiller jeunes yi wax laaj leen wax la ñu ñëw ñu ñëw effort parce que effort à tout. waaw man sama mot de la fin mooy que damay sant ñëpp di gërëm ñëpp. Euh, di wax ñëpp ne. loo leen def lu dul ñëw IFHOT fii. defoo leen noo yàq ngeen ko defoo leen lu baax. fii day def effet ñëw leen ci IFHOT. voilà ngeen ñëw ku ñu bëgg jot nag mën nga dem suñu sit internet yëpp comme Salam Vision bu ngeen fa duggee di ngeen fa fekk bépp information. bu ngeen bëgg a am mais mais sax am na télé. surtout loolu barki Serigne Bamba eh il faut am na télé il faut vision. c'est simple day def effet. yow dugal YouTube rek nga laal il faut vision xool. waaw lépp loo fa bëgg xam ci ay information danga ko fay fekk bu baax a baax ñu jàppale la nga ñëw bu la loolu doyul nag ndaxte am na ñu dul connecté. waa léegi ci numéro bi 77. 980 86 84 wala nga woote ci 77. 230 56 38. rek foofa toj. mooy journée d'intégration euh, fii lay doonee ci IFHOT ku ma fi dëgg ne ma Massa journée bi nag mi ngi xewee fii ci Kër Massar incha allah. kon sans plus tarder dama koy bàyyi mu nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan comme ça ñu wéyal waxtaan bi coach si ñëng man moo coach en moi nuyu naa la. jërëjëf euh, merci beaucoup mon cher. di remercier waa IFHOT TV d'abord ñoom ñi nga xam ñoo ñu dalal di remercier waa IFHOT Soxna Ndiaye di établissement bi nga xam ne tey ñoom ñoo organiser woon seen journée d'intégration boole ñu ci mu nekk journée bu spéciale ñu jàng fi lu bëree bëri euh, parce que bi ñu ñëwee ci école bi ki ñu fi fekk nga xam ne mooy njiit bi jigéen la te dañu nekk ci milieu boo xam ne milieu bu boo xam ne du mayee dara la lépp loo fi am yaa ko may sa bopp te da ngay liggéey rek pour mën a jëm ci kanam donc euh, bu ñu ñëwee fekk fi jigéen mu taxawal lu mel ni ñun daf ñuy daf ñuy kontaan loo parce que xam nañ ne c'est pas évident ñu fekk fi aussi euh, ay professeurs yoo xam ne ay kilifa yoo xam ne wax dëgg yàlla ni ñuy defee formation bi am na solo fekk fi aussi ay étudiants yoo xam ne ak ay élèves yoo xam ne wax dëgg yàlla seen i engagement rek war naa mën a tax ku ne ñëw jàpp ci donc euh, euh, journée bi tey daal liñ ci mën a jàngat mooy euh, jàng nañ fi ne nit ki lépp loo xam ne mu ngi ci bu ko gëmee yàlla mën na ko ci may réussite vraiment loolu daal tey la ñu la ñu amoon pour wax en attendant ces questions. mais coach si dama bëgg nga conclure un peu ci thème bi parce que ku ne xam na ni tey li nga fi wax yëpp. ndeysaan dafa nekk loo xamante ni képp kuy sénégalais. Mhm. maanaam da si war a jot. maanaam pour conclure pour nga jëfal ñu conclusion mm-hmm. développement personnel mm-hmm. ku nekk war na ko am mm-hmm. moo xam ni ngay dundee moo xam ngay sëy moo xam nga nekk xale moo xam ngay nga nekk élève bu nee yow tu es tu es devenu mature rek yaa ngi xel yow développement personnel loo war a am la. effectivement voilà euh, xam nga ñun coach yi d'habitude dañu nekk ay nit ñu xaw a spécial ci société bi parce que dañuy def métier boo xam ne ñu bëri xamuñ ko. bëri na tey ay nit ñu jóg sax ne ay coach lañu mais amuñ sax formation bi nga xam ne moo mën a war a mën a tax tey jii ñu mën a taxaw ci mbooloo ba mën a wax ak nit ñi nekk na métier boo xam ne du ay caaxaan danga koy jàng comme nit ñi ni ñu koy jàngee mais dangay am aussi un vécu da ngay am expérience loolu daf ci bokk donc tey li ñu doon def tey ñu tuddee ko développement personnel dañ koy expliquer ci pàcc yu simple parce que journée bi tey def nañ deux heures et quelques de temps de plus euh, et plus pour ñu jaaraat ci day xaw a metti mais dañuy wax rek solo si nga xam ne développement personnel am na ko d'abord mbir boo koy def yoon la nit ñi ngay defal loolu xam lan mooy lan ngay def développement personnel mooy li nga xam ne c'est-à-dire une approche communicationnelle cest à moyen la de communication pour permettre à la personne c'est-à-dire mu am une amélioration pour mu a préparer wu dans le milieu professionnel pour insertion mën a facile c'est-à-dire le milieu professionnel le milieu personnel ak bi nga xam ne moom la ñuy wax tey jii l'insertion sociale donc développement personnel c'est la préparation de la personne bi nga xam ne moom mii pour mun a afficher sa personnalité dans ce qu'on appelle la société donc le développement personnel loolu la ci loolu dañuy def li nga xam ne moom la ñuy wax ce qu'on appelle la gestion de la timidité dañuy def li nga xam ne moom la ñuy wax le manque de confiance ñu gérer ko dañuy def li nga xam ne gestion stress la dañuy def li nga xam ne aussi mooy gestion de la peur parce que yooyu noonu tey moom moo nekk ay yoo xam ne moom mooy la personne pour mu mun a progresser moom mooy limiter la personne pour mu mun a progresser ci travailler nit ki day am benn ubbeeku ci àdduna ba lépp loo xam ne ay faille la lépp loo xam ne ay blocage la lépp loo xam ne ay limite la ce qu'on appelle les pensées limitantes dootul doon blocage ci moom dootul am une pensée négative de la vers la société mais day am des ondes positives yoo xam ne bu ko développé dans cette société day amal njëriñ société bi da koy amal njariñ day amal njariñ tamit insertion am te da koy yombal loolu tey jii moom moo ñu fi andi woon tey mu nekk deux heures de yoo xam ne passé nañ ko ak ñoom xamal leen ne communication mën na persoloo selon la personne communication li ñu naan wax feeñ mën na tax tey ji boo waxee rek ñu xam la personnalité de l' individu ñu mën a natt xam-xamu doomu aadama bi ñu mën a natt gis-gisu doomu aadama bi ñu mën a natt fan la ko mën xam-xamam mën a yóbbu tey ji ba mu mën a jëriñ askanam donc tey en résumé loolu lañ fi def si woon tey ci séminaire bi tey ak waa IFHOT di leen remercier bu baax a baax di leen xamal ni nous sommes toujours disponibles di jaajëfal nag tamit ñi nga xam ne fekk nañ leen fi parce que tey ji nee nañ képp kuy dem da ngaa bëgg ko la jàppale fekk nañ fi ay partenaires yoo xam ne man damay rafetlu souvent di dajeeg ñoom du tey rek laa dajeeg ñoom waa DER yàgg naa dajeeg ñoom waa waa waa pôle emploi yàgg naa dajeeg moom ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci ANPEJ yàgg nañoo daje ak ñoom li ñuy def lu ñu war a rafetlu la c'est-à-dire tey le président de la république Macky Sall am na vision ci éducation loolu kenn mënu ko weddi parce que ñun ci secteur bi la nekk gis nañ li mu ciy def gis nañ li mu ciy daj du ñu def lu dul remercier ko te di ko ñaan aussi mu yokk ko parce que lépp lu mu ci def rek ay ndawam la ko defal parce que la formation des jeunes loolu moo mën a accompagner benn dëkk boo xam ne dafay am loo xam ne moom la ci la ñuy séntu ndam ci ñoom parce que tey ji dëkk bii li fi nekk bu ñu former jeunes yi danañ am boo xam ne kenn du ñëw manipuler leen benn vent du leen yóbbaale benn leen yóbbaale parce que jeune la ndaw là cela ne veut pas dire que da ngay accepter ñu lay diri cela ne veut pas dire que da ngay accepter ñu lay manipuler cela ne veut pas dire que da ngay jël say loxo di tàccu yaakaar ay ñaar fukk yu ñu lay jox wala ay lakos yu ñu lay jox loolu dépassé nañ ko ñun ndaw yi li ñu gëm ñun ndaw ñi mooy ku bëgg ànd ak ñun da nga ñuy nawloo ku bëgg ànd ak ñun da nga ñuy bàyyi xel ku bëgg ànd ak ñun da nga ñuy jàppe jàpp jàppe ku ni nga jàppe sa bopp ku bëgg a ànd ak ñun da nga ñuy def sa nawle ni nga defee say doom sa nawle ku bëgg ànd ak ñun da ngay gëm suñu xam-xam nangu suñu xam-xam di saafonteeg ñun di wax ak ñun pour ko defee nag ñu mun a am benn benn dëkk boo xam ne symbiose bi ñu ciy woote ñun ñëpp ñoo koy bokk la synergie de cœurs et la synergie des actions va nous va nous permettre de développer notre cher Sénégal parce que suñu Sénégal gii ñun ñoo ko moom bokkuñ ko kenn du ñu dem du ñu dem fenn di di jéggaani fii la ñu dëkk fii la ñuy toog fii la ñuy développer donc maa ngi wax ak say internautes di leen wax ne message bi ñuy lancé c'est pour la jeunesse de mon de mon pays tey jii am na ñoo xam ne amatuñ yaakaar ci jeunesse bi parce que nu sommes face à une jeunesse manipulée cette jeunesse manipulée bu ñu leen bàyyi mukk en rade nañ leen récupérer waat conscientiser waat leen xamal neen le tey jii ci kanamu ndam il faut que ñoom ñu góorgóorlu pour mën faa àgg mais bu fekkee ne da ngaa toog ne yaakaar ne pare sa pare nga say diplôme rek que am nga liggéey ndax nga sa bopp nañu dem ñu gëm entrepreneuriat nañu dem ñu gëm dem nga xam ne point yi nga xam ne moom lañ teg pour gunge ndaw yi nañu dem vers l'information comme ni ñu ko waxee woon sànq nañu uti xam-xam nañu uti information nañu uti ñu ñu jàppale nañu uti ñu ñu àndal mais loolu yëpp bu ñu koy amul lu ñëw ci àdduna te doo ko mën a gérer donc foofu laay daanele samay kàddu di jëfal ñi nga xam ne ñoo ñu dalaloon di leen ñaanal yéen seen mbir mi nga xam ne moom ngeen yor mu dem ba kawe seen i njort maanaam na àgg foo xam ne waa Hip Hop Vision ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen bàyyeeg ki nga xam ne man tey jii mënu maa wax te tudduma ma ko Adama xam na li may wax dafa am góor goo xam ne daf maa mos a wax ne ma lu tax sooy ubbi émission di ko ubbee waa kër Sëñ Fallou ko ma ne ko soo gisee su may ubbi ma nuyu tax Muntaxa nuyu kilifa dina yi fi nekk yëpp nuyu waa jàngu bi waaye ñaanal waa kër Serigne Fallou ñaanal sëñ Serigne Mbacke mi nga xam moom lañ jox musée bi bi nga xam ne mooy civilisation bi nga xam moom la war a def Touba pour lépp loo xam ne Serigne Touba da doon jëfandikoo tey jii ñu mun a dem Touba fekk fa di ko visiter muy ce qu'on appelle le tourisme religieux ma ne loolu loolu laay ubbee saa su nekk mu ne ma lu tax ngay ubbee loolu ma ne ko ñun dañoo nekk ay ndaw yoo xam ne avant tubaab bi di jiitu ci ñun daa am loo xam moo njëkk a jiitu ci ñun muy daara ñun ay doomi daara lañ te fu ñu nekk dañuy défendre doomu daara yi li ñu am daara ñu ko may li ñu am yar moo ñu ko may li ñu am ay kilifa ñoo ñu ko may moo tax fu ñuy tàmbalee dañuy sant di gërëm suñu kilifa yi ñun bokkuñ ci ñi nga xam ne dañuy taxaw assemblée di xarab suñu kilifa mbaa ñuy uñu seen i worma mbaa ñuy uñu seen i sutura encore une fois réew mi réewu valeur la encore une fois réew mi réew la boo xam ne dañoo war a téye li fi nekk te pour ñu téye ko il faut ñu ànd ak yar il faut ñu ànd ak dal il faut ñu ànd ak xam-xam il faut ñu fonk suñu kilifa yi fa nekk ndaxte li fi nekk fondement bi ñoom la ñoom ñooy la base de tout donc ñu bàyyi xel bu baax suñu réew mi bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy les soubassements de la paix ñu bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi donc foofu laay daaneele sama kàddu encore une fois di ñaanaat ci réew mi jàmm di ñaanaat ci réew mi xéewal di ñaanaat ci école bi li nga xam ne moom la ñuy ñaan saa su nekk fu ñu mën di dem di ko ñaanal ñëpp mooy yàlla na fi yàlla def barke parce que bu amee barke rek day dem école mën na koo gën a rëy waaye bii mën na koo barke mooy képp ku fi jaar doon ndaw yàlla na yàlla yëkkati ba may la loo mën a tere la say waajur parce que ñun ñëpp waajur moo ñu tax a jóg li ñuy sonn yëpp pour waajur la yàlla na waajur yi fekkee lépp fekkee suñu njëriñ école bi jëm ci kanam xéewal yi gën a yokk asalaamaaleykum wa rahmatullah c'est émouvant c'est émouvant c'est émouvant asalaamaaleykum asalaamaaleykum chers euh, internautes asalaamaaleykum àdduna wërngal képp ñu leen di woo fii à IFHOT muy journée bu ama am solo man de ku ma fa dëgg ne ma masta mooy journée d'intégration euh, fii lay doonee ci IFHOT ku ma fi dëgg ne ma massa journée bi nag mi ngi xewee fii ci Kër Massar incha allah. ñu am toog ak yow parce que nee naa la sama waa ji sama waa ji am na koo xam ne boo xoolee xam na kii sa waa ji naa la gisit moom ku ne xam ne ne géej la dëkk ndax saa yu génnee géej géej la jëmaat kon tey en tant que directeur ba parce que tamit c'était pas évident d'organiser une journée comme ça euh, aussi rapidement dans un délai aussi court tamit organiser nañ ko. ça s'est bien passé et que tout le monde participé nañ de la manière bi ñu ko bëggee woon donc je les remercie et je les encourage à ñu dolli li ñuy def parce que yemul ci jàng bi rek on dépense le milieu juste de de mais maintenant on forme des personnes ay personnalités la ñuy créer donc moom moom moom laay wax ñëpp képp ku ci topp li ñuy def incha allah di nga ànd ak ñun mais képp ku génn ci li ñuy nekk. yàlla xam après fu ñu jëm mais daal je dis à tout le monde que na ñëpp jàpp parce que c'est quelque chose boo xamante ni ñun ñëpp a ko bokk. ñun ñëpp ko bokk te bu ñëpp jàppee man gëm naa ne avancement bi dina romb lii ñu gis ni donc tey gisaguñu dara c'est juste le début. IFHOT n'a pas encore fait cinq ans juste deux ans la am donc deux ans nga mën a def lii c'est-à-dire que dans cinq ans faut sera une très grande école incha allah. ñu bëggoon xam tey jii ku bëgg ñëw IFHOT wala tey jii ku bëgg jokkoo ak ñoom nan ngay def parce que loolu intéressant donc boo bëggee soxla IFHOT nga bëgg leen a woo téléphone am na 77 980 86 84 wala nga wootee au 77 230 56 38 ñaari numéro yooyu ku ci woote di nga jokkoo ak waa IFHOT mais sinon aussi on est présent sur les réseaux sociaux am nañ page Facebook am nañ page euh, euh, YouTube TikTok yooyu yëpp am nañ les pages là donc képp ku ñu bëgg contacter boo jaaree ci dans les réseaux là tu pourras nous joindre inchallah pour terminer en beauté on voulait que vous nous disiez l'ambition majeure de IFHOT de IFHOT c'est quoi donc l'ambition majeure de IFHOT mooy former des jeunes leaders ah leaders et entrepreneurs ñun loolu la ñu bëgg quoi donc on ne fait pas comme les autres mais on fait quelque chose de particulier bi ñuy jàngal ñii dañ leen jàngal restauration comme tout le monde mais en plus de la restauration qu'on leur mais dañ leen di jàngal à développer une personnalité dañ leen di jàngal à entreprendre c'est-à-dire que des leaders la ñu soxla mais pas ay nit yu ñu topp nii rek jàng rek génn dem leader la ñu soxla loolu mooy ambition wu IFHOT donc IFHOT est là pour former des leaders des dirigeants de demain merci kontaan nañ ci et ça fait un énorme plaisir ñu toog ak yow. mooy journée d'intégration euh, fii lay doonee ci IFHOT ku ma fi dëgg ne ma Massa journée bi nag mi ngi xewee fii ci Kër Massar incha allah. on va continuer la faire mbégte contentement lay am dalal ki nga xamante ni nii moo waral bis bi parce que nee naa lépp lu socc am borom te la ma ko waxoon sànq rek nee naa ko moom mii moo moo moo mat waay teg si nekk Gaynde Njaay parce que madame Ndiaye ku ko xool xam ne développement mu ànd ci ay ay jeunes yoo xamante ils sont tous engagés ku ci mel ni ñoom Adama ñeneen ak ñeneen kon tey jii nii sans plus tarder dama bëgg nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. asalaamaaleykum asalaamaaleykum tout le monde asalaamaaleykum waa IFHOT asalaamaaleykum waa IFHOT euh, SN bu kër de Kër Massar asalaamaaleykum waa IFHOT Vision asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. di nuyu waa IFOT vision bu baax di beral nuyu waa IFOT. madame Ndiaye man sama laaj bu njëkk ci yow madame Ndiaye objectif IFOT bi ngay nekk jeune nga amoon xeex bi wala lan la lan moo waral tey IFOT egsi fi mu egsi. waaw man euh, bi may nekk jeune laa ko mbébétoon parce que restauration dafa nekk loo xam ne dama ko gëm dama ko bëgg mooy sama rêve. Euh, maa ngi commencé mille un ba léegi maa ngi def restauration ba 2001 ba léegi maa ngi ci hôtellerie bi ba tey yàlla def ñu ci ñu am suñu ci école depuis 2019 lañ tijji école bi école bi nag bi ñu koy tijji boo leen xoolee par internet mi ngi tuddoon EF Soxna Ndiaye ñu dem ba ci biir ba ci biir ñu changé tour bi tuddee ko IFOT SN Kër Massar loolu la dem kon madame Ndiaye pour nga xam ne ñoo toog duñu seetaan li ñu mën a wax mooy que ni jibi jibi bi nga bi nga bi nga bi nga bi nga nekkee jeune nga doon rêvé lu nii. waaw waaw bi ma nekkee jeune ba léegi maa ngi réal maa ngi maa ngi doon réagir lii lii daal mooy sama rêve ndax man restauration nit ki bala ngay def bala ngay def benn affaire danga koy gëm ba pare bëgg ko dama dama gëm ne restauration moo fi nekk dama gëm ne sénégalais ku leen bëgg a dimbale ak jeunes yi ma fi gis ak xale yi ma fi gis faaw nga def restauration métier yëpp nag baax na de mais bii dafa nekk métier bu noble métier bu baax métier bu gën a gaaw teg ci hôtellerie moo fi nekk parce que possibilité yi nga xam ne moo nekk ci hôtellerie restauration dafa bari bari na bari goo xam ne restauration boo ko déggee du wàll yow da ngay ñëw rek togg restauration dafa vague filière yi nekk ci biir restauration faw ñu décortiquer leen ko wax leen ñaata matière moo nekk ci restauration restauration du togg kese restauration am na cuisine am na pâtisserie am na garde manger am na salle service am na réception am na bar am na domaine bu nekk mu ngi ci biir hôtel bi waaw parce que ñun tamit waa IFHOT ñi ñuy def le maximum suñuy élève ak képp koo xam ne rek yàlla boole nañoo ak yow ñu ngi def le minimum dinañ toppatoo suñuy élève dinañ jàppale élèves yi dinañ leen dimbale ci enseignement bu baax dinañ leen dimbale ci stage dinañ dem sax bay joxe ay emploi IFHOT mooy école boo xam ne danga nga fiy génn mu tële liggéey. loolu mooy 100 pour cent garanti. 100 pour loxo ci poos lañ lay defal. stage 100 pour cent garanti fii ngi am ay partenaires partenaires yi bari na lool. loolu a neex ci IFHOT nag partenaires yi c'est loolu noonu maanaam foog ñu waxtaan ci partenaires yi dañu da ay partenaires de. waaw riche nañu ay partenaires macha allah te yi ñëwagul moo ëpp IFHOT am nañu ay partenaires IFHOT ak suñuy stagiaires IFHOT ak suñuy stagiaires fii fii ci Sénégal ak à IFHOT am nga possibilité am stage fii Sénégal am nga possibilité am stage à l'étranger. li ma gën a neex ci IFHOT mooy que ni dafa xool hôtel yi nga xam ne ñoo gën a baax Sénégal. ñu collaborer ak ñoom. waaw boo xoolee IFHOT comme par exemple ñu ngi dakaar mën nañu citer ay hôtel yu bari li ci demee ni ay hôtel Pullman hôtel Radisson hôtel Iris Boutbam Jalaaw ah hôtel Club Med ñu partout dans le monde ñu nekk ak ñoom hôtel bu mag boo xam ne ñoom ñoo ñu tànnal seen bopp. def def ak ñun partenaire li ñu laaj suñuy élèves yi nga xam ne jàngal nañ la ci ñetti at ba ci ñeenti at ñu pare ñu am seen diplôme ñu tàggat leen ci hôtel yi bañ mokkal Club Med jël leen wutal leen liggéey defal leen ay contrat yu baax. kon tey journée bi nan nga ko dundee. dañuy def tamit transformation fruits et il faut ñi ngi def tamit assistant travaux ménagères maanaam assistant travaux ménagères boo ko génnee boo ci amee diplôme di nga mën a nekk gouvernante général ci hôtel yi gouvernante général ci hôtel yi ñu bëri xam nañ ko ñii xam nañ ko ñii xamuñu ko parce que boo ko déggee maanaam mooy wàllu lingerie boo nekk ci hôtel yi ak wàllu hygiène bi te loolu jeunes yi nekk Sénégal koo ci ne kaay jàng nan la ñuy fóotee day bañ te pourtant il faut da koy def mi ngi ci soxla ay nit ñoo xam ne mi ngi koy wër mais amaguñ ko parce que hôtel yi ñu ngi ñu koy demandé kon daal il bépp formation boo xam ne jigéen ndaw war na koo def boo ñëwee fii di nga ko fekk il faut daal lay def effet ma bëggoon nga wax ma tuuti lay ñu lay ñu lay ñu lay sant di la gërëm parce que li nga li nga réalisé en tant jigéen c'est pas donné à n'importe ñu bëggoon nga lancé message yi nga xamante ni ñoom jigéen ñi nga xam ne ñoo toog ñu seetaan nga wax leen que ni mën nañu gëm seen bopp mu gëmee seen bopp lépp tout possible parce que juddoo woo rek am lii da am jaar-jaar da am vécu da ko gëm moo tax nga expliqué kon lancé leen message pour que ñu mën a xam ne c'est le moment waaw di soññ ndaw formation yi mi ngi fi ñu ñëw formation bi maanaam ñun dañu nekk école boo xam ne yamuñu ko rek ci togg ak yàq ñun dañoo nekkaat ci yeneen formation comme transformation fruits et légumes il faut koy def il faut tamit mi ngi def assistant travaux ménagères bar caissière comptabilité lépp il faut koy def kon damay ñax ndaw ñu ñu dem ñu ñëw fii ci IFOT bu Kër Massar di nga am sa di nga di nga di nga am say études yu baax di nga def sa formation yu baax di nga am sa diplôme reconnu par l'état tamit di nga ko am parce que il faut tamit c'est reconnu par l'état du école boo xam ne da ngay ñëw nii jàng rek dem ñu attesté la nga dem dañ lay présenté nga dem examen au niveau national kon ñoo ngi ñaax ndaw ñi nekk Kër Massar di ñaax nekk ci Dakar bi yëpp un peu partout dans le monde ñu ñëw IFHOT possibilité yaa ngi fi mooy école bi nga xam ne da lay gunge sa première année ba année nga topp la suivi di la nga am say stage soo amee say stage mu jàppale la ci ba ci am sa emploi soit Sénégal wala à l'étranger. kon daal effort bu baax bi la. effort mooy bu baax. kontaan nañ ci. asalaamaaleykum asalaamaaleykum chers euh, internautes asalaamaaleykum àdduna wërngal képp ñu leen di woo fii à IFHOT muy journée bu ama am solo man de ku ma fa dëgg ne ma masta mooy journée d' intégration euh, fii lay doonee ci IFHOT. ku ma fi dëgg ne ma masa journée bi nag mi ngi xewee fii ci Kër Massar incha allah.